Assalamualaikum Senegal, Assalamualaikum Afrika, Amadou Baro Senegal, ma dellu si waat gars yi ñu taxaw seetluwaan si tolluwaay réew mi wax sama xalaat ak sama gis-gis comme ni ko Sénégal di defé di taxaw lo nak man tay lima taxaw jog moy moy yor boutique jaay man tey li ma tax a jóg mooy mooy ñi yor bëtiku gént di ko jaay Assalamualaikum, Senegal. Assalamualaikum Afrika. Amadou Baro Senegal ma dellu si waat gars yi ñu taxaw seetluwaan si tolluwaay réew mi wax sama xalaat ak sama gis-gis comme ni ko Sénégal di defee di taxaw lu nak man tay lima taxaw jog moy moy ñi yor boutique gént jaay manam ñi jaay gënt ñi nga xamante ne dañuy gént yeewu jaay ko sénégalais yi valoriser leen may leen doole kàttanal leen ba ñu jàpp seen li ñu nekk nii yàlla yi kase la <coughs> gaay yi gars yi yi seet seetkat yi moom la ñu de ñoom nag seen seeni bitigu gént lañ yor bitigu gént am ngeen bitigu gént gars yi bitigu gént lañ yor dañuy jaay gént xëy suba ba ngoon jot danay jar lii Sénégal la xewee te gaay duñ ci wax parce que dañ leen di géntal lu leen arrangé ah li may laaj neexu leen man sama xalaat rek laa doon wax ci jaaykatu gént yi waaw Sénégal nag dafa am ñoo xamante ni dañoo ubbi seen bitigu gént di ko jaay ñi ngi fees fi dell chaque jour ku bees génn te teewul li muy jaar li muy jaay day jar waaw comme que gars nag si ay gént la ñu bëgg a toog ay gisal naa diw nangam te ñoom bu ñuy bu ñuy gént duñu géntal néew du doole rek non duñu géntal baa doole mais borom doole rek lañuy ñuy géntal ak kilifa soit disant ñoom foofu la ñuy géntee parce que man mënuma comprendre nga nek ci aduna bi ah di gis ay president yi waaj falo yi yuy falo tay yow am na lu bëri lo xamantene tay tay tay tay bu fekkoon xam-xam deug ngay wote man damay wax ne gaay yi jamono ji ci xelu nit ñi lañuy dugg di foye gaay yi si xelu nit ñi lañuy dugg di foye léegi nak nit ñi ñun ñu ñoo leen ko yombalal parce que dañuy ñew andi serigne tek mbugo ko andi ci diine bi tek mbugo andi xam-xam andi batim andi ay affaire legui nap gaay ci ben côté parce que ñom en général en général seen business bi gëna dox Viagra bu mu la Viagra moy li dooleel ngóora ñom en général seen yoy moy gëna a dox mais dañ koy laxasaale ak set def xam nga gis ay affaire manam ko tella bayra genre affaire yoy, parce que dem nañ ba jamono ji sa gaay legui léegi bi lañ yor manam li nga xamantene tay, buñ la ko joxe maanaam maanaam nopp boo xamante ne boo ko takkee tey lépp lépp loo mun munti def nit ñi muut la ñuy def noppi am na nag seetkat bu ko yor jamono jii mooy seetkat bi nekk ci kaw seetkat yi parce que day jamono daan nañ bi dégg salba ndoom mais salba jamono ji yaa ma gën a xam gars yi dañ ko romb parce que yi muy teg nii gars yi war nañ ko ne ko mën nañ ko te ñoo la ko dàq te sénégalais yi xam nañ loolu léegi nag yéen sénégalais yi da ngeen kon continuer ñu jaay ay gént waaw wala déet Ousmane Sonko moom jaayul gént solution la jaay mais ña sa des nag gaay gént lañ leen di jaare tey da tey gëmloon nañ leen ne da ngeen di émerger le Sénégal émergent léegi Sénégal bi émerger man laa bëgg a xam ban Sénégal mooy émerger parce que yow mënoo ne da ngay émerger nekk un pays boo xamante ne yow da nga ànd tewu wala nga amé boré amé bor amé bor ba yow kenn comprendreul nga né da ngay émerger fan fan nga jëm ci émergence ah bor bo xamante suñu suñuy sëtaati sëtaati sët ñoo koy fay ah ñu ne duñ ko fi wax gouvernement bo xamante yow ñu yoni la padoa yow nga dem ba yëmbal nek yëmbal di def la neex yaakar na yaangi ci mu nekkoo ci parce que gars yi paduwaar la yoon yónniwul la yombal moy li waral tay ligay président maanaam gouvernement bi tay ñom jamono ji priorité li ñu japp moy priorité Sénégal moy fubu moy sport sport lañ japp ak transport ñu né dañ koy régler naka lañ koy régler moy dañ lay andil terre andil la berté tabaxal ay stade ak ay petit terrain de football ñu né loolu lañu gis si jamono jii fi ñu toll dëkk bi yëpp nag pont ngeen ko mais si biir pont yi ñu ngi ciy gis ay dons offerts par la Sénat République de Chine parce que man damay jàpp ne affaire bi ensemble la quoi parce que pont yi ak lu yoon yi ñuy defar defaraat yi pour dem aéroport la wala pour dem jëli teer bi la wala pour dem si stade yi man lii laa gis wala pour dugg à péage te autoroute à péage tey sénégalais yi. ñu ngi koy seetaan mu ngi dox mais man scandale laa ko jàppee parce que yow tey yoon bi gën a baax si yoon yi nga am pour génn Dakar ñëpp xam nañ yoon bi nu mu demee hmm? xam nañu yoonu génn Dakar bi mét dafa yéeme muy maanaam diggante Tëngéej ñëw jam ñaajo bu dul loolu sax tali yi kenn xamul ay tali lan la kenn xamul ay tali lan la yow lijjanti woo tali yi defaraatoo tali nga ne da ngay ubbil nit ñi yoonu péage te péage bi ñun xam ne waa Eiffage ñoo ko yor te Eiffage c'est les français en gars yi français yi ñooy ñoo gérer Eiffage léegi français yi naka la ñu mën a gérer Eiffage ñun ñuy fay français yi pour am yoon bu gaaw léegi si biir yoon bu gaaw boobu noonu noonu moo am ay ay ay gendarmerie ay gendarme national yu nekk foofu noonu maanaam ñoo xamante ne ñoom suñu suñu doomi réew lañ si ñun lañ war a liggéey maanaam suñuy société national lañ war a liggéey mais pas société étrangère mais da leen fay gis après li gën a yéeme man si li ma constaté mooy naka lañ fay mën a téye gars yi si ay pièces tardé leen te ñoon dañu fay péyage kan moo leen di si man mu mënoon naa d'accord ñoom ñu taxaw taxaw si buntu péage bi ku génn ñu jàpp la ku génn ñu jàpp la grawul mais si biir péage même bu dee sécurité dafay am biir péage dama ne Eiffage moo war a jël sécurité am mais pas ay gendarme nekk fa gars yi dañu waxante dëgg gars yi xel ak xalaat ah ak chauffeur yi chauffeur yi apprenti yi événement bu amee ngeen jël paase yokk ko def lu leen neex hmm? jamono ji tarif yi nu leen neex ngeen koy yokkee amatul fixe ñun faykat yi ñun ñuy paas dañoo sonn ah gars yi ñuy sonn dañoo sonn si paas bi tamit nañ waxante dëgg. Hmm? bo yaakaare ne tata bi mo gën parce que tarif bi normal la nga dugg ci tata bi waa ji tardé la ci yoon bi parce que day liggéey comme ñaga ñay ni ñuy liggéeyee. aussi Dakar Dem dik war na mën a ay Dakar Dem dik ñuy créer yo xamantani day yobu gaay amul pass ci tali bi parce que nak national la ñu ñoko mom Dakar Dem dik war na mën taxaw yobu gaay gratuitement mais du ko def ñom buñ dawé yab buñ dawee ñu dañuy fayeeku mais gars yi quand même leen jëndal biis yi du sénégalais yi ñoo moom biis yi ah gars yi Sénégal doy na waar Sénégal doy na waar lii nag ubbi la woon rek taxaw seetlu wala leen ne leen dem dañoo ñëwoon taxaw rek pour am benn aperçu xool live bi en direct bi nu muy demee si si Facebook beeg yooyu comprendre nga e mais lu si mënta am rek. ñu dinañ faral di ñëw di waxtaan ak yéen parce que moo tax ñu ubbi compte Facebook moo tax tamit ñu nekk ci réseaux sociaux yi parce que xam nañ ne carrément message bi fii lay mën a jàllee fii ngay mën a toogee waxtaan ak sénégalais yi waxtaan ak Africa waxtaan ak àdduna moo waraloon ñu ñëw passé suñuy message message bi nag du dara lu mooy maanaam français yi. maanaam dañoo dañoo ñun maanaam instant bi dañoo doyal sëkk si français waaw làkk bi nag lañ xamul luñ koy def mais bu ñu paree ak ñoom danañ xool làkk bi xool luñ koy def pour avancer parce que tamit lii dafa yéeme quoi ñun jamono yi 1960 ba léegi ba léegi ñun avancé wul mais France bi ngi dem mais ñu demuñu ñoom fan la ñuy jaar ba dem kan moo leen di yóbbu. loolu yëpp tamit bàyyi xel moo tax Amadou Baro Sénégal la kon gars yi yéen ñu tàmbali seen laaj bi ngeen seetaanaat ko xam nga commentaire wax leen seen xalaat ak seen avis si ni ngeen gisee critique ak lu ngeen bëgg tamit des fois ñu koy andi di si taxaw seetlu bëgg nañ ci seen avis parce que bu ñu amul tamit benn retour bi benn commentaire bi wala benn critique bi en fait duñu xam fa la ñuy ñëwee. waaw moo waral nag dañuy taxaw observer seetaan mais teewul lu ñu naqari ak lu ñu gis lu ñu gis na lii neexuñu dinañ ko def vidéo waxtaan ko expliquer ko parce que tey bu ñu sénégalais bi di dund tey seetaanul suñuy statistique bu ñu ñëwee dinañ xam ne kat carrément kii positionnoon fi la nekkee ñii kat ñoo nekkoon si dimension bii kii moo doon wax lii kii bokkoon na si ñii ak ñii ak nii looloo waral ñu dugg si affaire bi nekk ci parce que xam nañ ne boo defee vidéo dootu fi jóge archive lay doon kon gars yi Amadou Baro Sénégal la ma dellu si waat taxaw seetlu si tolluwaayu réew mi di la laaj nag sa commentaire ak sa avis dañuy yemale fii direct bi parce que xam na ne actuellement dimanche lañu nekk gars amuñu benn temps bi ak benn possibilité bi moo tax dañ ñëwoon rek vite fait lancer suñuy message yow mi tome nag yow mi yegg si te fekkee fekk nga vidéo bi ji live bi jeex aussi tamit sa commentaire xaar nañ ko parce que xaar nañ tamit ñi di dugg benn benn yi ñaar ñaar yi tamit aussi c'est pas bénéfique te aussi tamit jaru ñu war a mën a taxaw gën a yaatal moo waraloon tey ñu ñëwoon taxaw seetlu ci tolluwaayu réew mi Sénégal ak Afrique Amadou Baro Sénégal gaay yi ñu koy ñuy joxante dig daje ba fan yi jaagan